ci seen site internet euh, Mouridia info euh, tey jii nag ñu am mbégte ak kontante bu baax euh, di dalal jàngkat bi nga xam ne jëruñu koy présenté kenn jëruñu koy wax kenn muy koo xam ne ku ràññeeku la ci réew mi ci gox yi fasanti ko ci biir réew mi kooku nag buñ ko waxee tudd ko ne baa Soro la dëkkee yaakaar naa xel yëpp dina dem ci Serigne Cheikhouna Mbaj Serigne Cheikhouna Mbaj foofu leen moom leen fas ne amal moom jataay ci ay ponk yu bëree bëri fas yéene waxtaan ak moom kan mooy Serigne Cheikhouna Mbaj ak lan la Serigne na Mbathie yéene liggéey Serigne Touba Mbacké ci xasida yi ak it fan la euh, bëgg yëf yi àgg fa yooyu yëpp ak yeneen yi ponk yu fasanti dana danañ ko waxtaan ak Serigne Cheikhouna Mbathie xanaa pour bañ guddal ndax li waxtu yu bariwul dañuy jox Serigne Cheikhouna Mbathie rek mu di nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiitu ci siyaare bi Serigne Sidi Makhtar Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba yéene ji mun na am ci liggéeyal ko sëriñ Touba lépp suñu borom kàttanal ko mu def ci lu kawe njortam te ànd ko njabootu Serigne Touba gi yëpp sëriñ Baye noo ngi lay fay te am mbégte ci jotaay bi di siyaare mboolem ñi nga xam ni ñu ngi nuy xool walla ñuy seetaan site bii di Al Mouride Info ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare. jeexoon naa ci nuyoo bu am solo boobu. Euh, kon bala ñoo jàll ñi ngi siyaare bu baax euh, sunu baay bu baax bi muy Serigne Mor Mbaj ñi ngi siyaare bu baax it Serigne Moussa Diop euh, di siyaare Serigne Mbacke Diop mi nga xam ne moo nekk ci wàllu xarala gi di siyaare Serigne Abdou Wade moom it teew na ci jataay bi kon bu ko defee dañuy bañ a guddal pour tënk ñi nga xam ne dañuy topp site internet bi te xamuñu kan mooy Serigne Cheikhouna Mbaj léegi bu ñu doon wax ci tënk kan mooy Serigne Cheikhouna Mbaj Serigne Cheikhouna lan nga ñuy wax. waaw kay Cheikhouna Mbaj Touba la dëkk. juddoo fi màgge fi doon jàngatu xasida ca ba muy tuut tànk ba léegi euh, loolu yëpp itam nu euh, nàmpe ko ci waajur yi nga xam ne moo mel ñi ginnaaw ba mu ba mu ànd yàlla bi wéyee te mu neex sëriñ bi itam wa sunu waajur nekkoon ci xasida yi di ci yëngu ba tax na nu màgg nu itam nàmputalu ci loolu Euh, ba sunu borom xirnu ci xasida yi bin doone tut tank sunu baat neex nu di ko diko foye ba euh, lolu mo waral nëgë ni tey nu jangatu jàngatu euh tonte bi leer na ñu ngi la koy euh, rafetlu bu baax legi ñuy laaj diggante Serigne Cheikhouna Mbaj ak euh ndax dañuy dégg ci média yi lu bëree bëri ñu lool sax danaka am na xam wala bok ñeneen ñi xam nañ ko xam ne ne Serigne Cheikhouna am njàngam li ci jiitu mu ngi doon ànd ak Serigne Khadim Gueye euh, ba mu ci jógee ber ber ber daaray boppam léegi nag ber daaray boppam jooju lan moo sabab mu ber daaray boppam loolu lañ bëggoon a xam moo tax Serigne Cheikhouna ber jékki-jékki rek ber daaray waaw loolu lu yomb tontu la ndax euh, Serigne Khadim euh, bi ñuy dem ci moom sax am nañ suñu daara bu dee daara ji mooy am sa kuréelu bopp kon boobu am nañ suñu daaray bopp xanaa kay. dafa fekk ni cofeel mënu yóbboon ci moom ak itam booba itam suñu expérience xëy na kaweewul noonu dem bootu ci koo xam ne itam xëy na moo la ëpp expérience waaye loolu yëpp la ko jiitu mooy cofeel gi nu amoon ci moom ba tax nu bëgg ko sopp ko di ko roy kon moo waral nu dem di ànd ak moom ber gi daara itam wolof dañuy wax ni njàng njàngan boo mekk boo mokkalee ber sa daara defe naa noonu lañ koy waxee kon euh, loolu itam da fii ci jouer ndax itam euh, bi nuy dem ci moom jànkatu xasida lañu waaye ba nu demee ci moom itam yokkoon nañu fa ba xam ni yokkoon nañu fa itam loolu itam noo ngi ko koy sant ndax euh, ànd na noog moom fu ne ci réew mi ak lenn ci bitim réew itam nu ànd fa ak moom ñu nu xamuloon ñu bari xam nu ci ginnaawam euh, loolu ak yokku la jëlee nañ ko fa ci moom noo nga koy sant di ko ñaanal mu yàgg fi te wér waaye ber gi daara itam loolu moom euh, sant yàlla lañ ciy def ndax itam moom loolu bëgg-bëggam la ndax jàpp naa ni ñi ko topp ñëpp bu sañoon kenn ku ci nekk da nga ber sa daara yi bopp ndax génération bu nekk Mm, ànd na ak moom ndax bi muy door xasida yi ña doon ànd ak moom bokkut ak man ña ma fa fekkoon eh, ña fa nekk itam bokkut ak ña fa bàyyi woon kon noonu noonu lay doxee rek waaye du tekki tekkiwul itam eh, boo demee eh, dafay am luy dox seen diggante sunu diggante mi a tax ba léegi te itam loolu moo war a nekk ñoo ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal yàlla waaw noonu daal lañ ci mën a tontu ci loolu. na eh, xame nañ ci lu lu bëree bëri loo xam ne xamee su ndax dañ ku ber sa daara kon loolu waral sëñ Seexuna ber ber ber ber daaraam léegi nag eh, dañuy ñëw ci lan moo tax moom mu jël yoon wi muy wala dafa xam nat batam fu mu toll ndax sëñ Seexuna kenn ku ne xam na ko bu la roy léegi-léegi mu jékki-jékki nag sensé yoon wu sëñ Xaadim doon dox dox yoon leen wax benn yoon nga xam ne foo ko dégg da xam ne kooku sëñ Seexuna la léegi lan moo waral loolu dafa natt baatam xam ne mënutut a dem ci sëñ Xaadim wala dafa xam ne kat loolu mënta wéy léegi mu daal di eh, jël jël jël yëfi boppam léegi loolu leen bëggoon a xam pour ñi ñi ñi nga xam ne eh, bëggoon nañoo laaj laaj. loolu li ko waral moom mooy loolu rek ndax eh, boo nu déggee xam ne ñun la loolu moo waral ndax itam nit nga dégg ma may jàng nga di ma jaawale ak ka may roy. loolu man du sama avancement xëy na intérêt kamay roy la bokk ci lay doon waaye euh, soo ma déggee xam ni ma na loolu nag yokkute la sëñ Xaadim Géey bi muy jóg sëñ Abdoulaye Seck lay roy waaye ku ko dégg daa nga ko jaawale ak moom léeg-léeg waaye euh, ku xam dëgg moo moo ko dul jaawale ndax euh, tolloo wuñu woon kàttan Euh, sëñ Xaadim it mujj gi ba mu xamee ni xëy na loolu ak itam expérience am mu tàmbali di fente euh, loolu itam man bi ma dikkee ci moom lu ma gisoon la moo tax itam ma bàyyi ko xel man itam bu baax te sëñ Xaadim maa moom bokkuñu baat te roy dafa metti roy moom euh, man ni ma yëf yi di jubboo ak ni ma koy waxee fekku ci koo xam ni dafay bëgg toppandoo comme ni may waxee suñu bokkul doomu baat rek mën naa indi leneen. Euh, te du ma yàgg ba niru ba ba doon yow euh, ndax roy du niru piir la wolof di wax kon euh, li ma tànn gis naa ni man moom moo ma gën a arrangé te itam feeñ na waaw. na léegi dafa am question bu bu ma bu ma bëgg a posé léegi nag Serigne naa ak programme yi léegi Serigne naa nan lay doxee programme yi nan lay doxee maanaam dafa am koo xam ne. tey boo bëggoon a ñëw ci jox ko benn programme bu bees sëñ Cheikhouna directement ngay jot wala dafa am koo xam ne moom moom ngay jaar moom ngay ci ci moom ngay jaar pour doo ko mën a jot programme yi wala sëriñ Cheikhouna diggante sëñ Cheikhouna programme yi nan la demee daal pour ñi nga xam ne dañuy suivre bëgg nañoo jàngale suñ Cheikhouna te xamuñu ci sart yi yoo xam ne mën nañoo jote ci sëñ Cheikhouna léegi sëñ Cheikhouna programme yi nu muy demee. programme yi euh, li ci ëpp euh, ci sama loxo lay jaar euh, benn daanaka ñi lay jàngaloo bu ñuy jàngalu dañuy lijjanti numéro kiy jàng bu ñu lijjantee numéro bi benn danañ la woo benn nga wax ak ñoom wala nga transféré leen ci kenn euh, loolu itam euh, am naa sax ku ma leen di transféré waaye tàmbalee gu ma ko dëgg-dëgg comme ni ma ko war a doxale xëy na app ba jotugul rek waaye ku ñuy wax Moussa jóg defe naa kenn la ci kenn la ci site bi Euh, mom sama lepp lu sama wëlëre la jël na engagement bi pour def ko euh, lolu itam nangul nañ ko ko euh, waye nañu wara doxi deug deug batay des na xeyna lolu app ba baa rek waye lolu mom fi ni bu ni wax menacer moko don ci non menacer ménagère teki wul ni ay jang rek lay lijeenti da ngay am xel hmm, di ko xelal ki ngay menacer Hmm? loolu ci la bokk te loolu mi ngi koy dox suñu diggante bu euh, rafet euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ni lu mu xam ci loo xam ni dana nu dana nu jàllale mu ngi ci kon mm, mi ngi mi ngi def liggéeyam. sëñ Cheikhouna ngay jot directement. kon loolu mbokk yi suivre seen Mourides info ngeen dégg ko noonu nga xam ne képp koo xam ne bëgg nga jàngaloo sëñ Cheikhouna sëñ Cheikhouna rek ngay jot directement waaye tàmbaleegul pour tasaare programme bi wala boog jox teg ko ci loxol mën a séeram waye amna menar ser ci niñ ko meuna a euma ma ak tay, tey ñu gis njangum mangnya, ak njangum tay buñ xolé njangum dimb mag ñe da daan da daan nam daan demee ak léegi nan la ko gisee différence bi ndax amna ak yokku amna ko wuté wala wala wala wala ba léegi fam tollu njang bi fam tollu ba ma nga fa. dimbuma ak njangum tay mi amna difference, différence amul différence ndax njangum dimb ma euh, différence bi moy dafa meti metti ndax boobu jumtukaay yi am léegi amul won boy jang da ngay jang naturel da ngay jang lo waxut do ko deg léegi nak man nga man nga sax sa baat man na dé sax nga lijeenti ba jang ta mu neex kon lolu jamono mo ag fofu lolu yëpp itam ak sant ak tiant la ndax euh, jàng ma la taxoon mu metti boy jang da ngay bëgg ñëpp di la dégg Euh, dëkk yi la wër di la dégg te yoroo ay rajo yu baax loolu kon coono faaw coono am da sa énergie bépp da nga ko génne euh, yàlla tam mu ngi leen ci doon dimbali ba loola ku ko doon jéem léegi du sotti kon xëy na foofa la tolloon waaye yàlla dem dimbali na leen ci ba euh, fa seen pas-pas ba àggoon suñu borom jàppale leen ca jamono itam bi mu doxee ba si ci matériel bi nga xam ni léegi yomb gën naa yombal yëf Eh, fi ne du muñ doon jëm loolu ñun duñ ko man nañ mag ñi doon def duñ ko man xawma ci lekk gi la wala wala xëy na comme eh, suñ borom jàppandil nañu yëfi kon motax tax daanaka lele kon du amatul amatul sens eh, man nañu jang mu neex ta nak duñ xaaxtandiku di yabi der comme nañ ko daan waxe bu jëk mag ñi bo nga bala nga jang bala bala bala balaa da ngay xaaxtandiku yabi der man loolu nak mom nun yalla musal nañu ci waaw loolu moom te teewul day day day neex wax dëgg yàlla. loolu gis-gis la rek mag ñi moom Pastef moom euh, weesuwul di jàng joxe sa doole ba mu jeex te ku ne xam na ni kuy jàng boo ko joxee xam rek faaw nga sonn moom bu rajo yi baaxee bu rajo baaxut sonn faaw mu euh, amaa nag euh, fa ñoom fañ daan àgg moom ñun moom yàlla mosal nañ ci loolu yàlla ñu ci dimbali rek Pastef bi sax. da ngay gis gone goo xam ni moo mm, ëpp mag moo ëpp mag ma mag ma doon jàng pas pas Pastef euh, loolu du ci dara euh, gis itam mag ñu bari itam ñoo ëppoon gone yi Pastef wax dëgg yàlla ndax ñoom ñu bari sëñ bi rek lañ daan yëg gone yi nag léegi moom yu ne da ciy laxasu waaw loolu nag xaw naa ma ko wute tuuti mag ñi dañ daan jàng rek jàng rek am na ci nag yu ñu ci daan ñoo xam ni am ci ci yenn kuréel yoo xam ni daanañ ci dugal yoo xam ni itam ay xeeti taasulaak yooyu yooyu itam mën naa dugg ci yi gone yi def ba léegi ba tey léegi waaye nag euh, xëy na noonu lañ ko yëgee woon nii gone yi jàng léegi itam am na ci ñoo xam ne ñu ngi jàng dëgg na ci ñoo xam tam ñu ngi topp euh, jigéen ñeeg xale yi di leen fekk ci seenu bëgg te jigéen ñeeg gone yi moom seenu bëgg mooy euh, fu jax rek waaw mooy na yëngu waaw yëngu gi nag dafa war a am fu muy yem ndax xasida bokkul ak leneen jàng xasida jàng la tudd bokkul ak woy woy moom boo koy def eh, day saayire xasida nag dafa war a baatine boo koy woy waaye dafa war a baatine kon nag warul bokk ak leneen léeg-léeg nag nga gis jamono ji moom nga gis ci njàng moo xam ne eh, tabaarkàlla waaye nag eh, seenu bëgg seen bëgg gi la ñu yóbbu ci xasida yi mën naa dem ba wommat leen ba dugal ci ñoom pas-pas boo xam ni yooyu dana génn ci seen xel. foofu léegi am na am na lu wax lu am solo mooy damay gis sëñ Cheikhouna bu dee jàng moom day mel ne du bàyyi sax ñi muy àndal sax comme sago sago sago ju mat sax du leen ko bàyyi parfois sëñ Cheikhouna day ñëw ànd ak àll xadar bu mu waxee dara sa gaa yi kii rek mu daal di yooxu seen kaw léegi loolu lan moo ko waral te léeg-léeg gis jànkat yoo xam ne dañuy bàyyi gaa comme ni nga ko wax baas bi day pëccoxoo kee jaar fee rëmbalement bi nangam léegi loolu lan moo ko waral. dama cee metti njàng mi moom dama cee metti moom xam naa ko waaye loolu lépp yëg-yëg la rek ak itam bëgg li may def mu tegu ci yoon itam maanaam bu ma xisee ba dugg ci njàng mi bu nit bu bu nit di génn gaam sax su ma ko yuux duma ko tey eh, loolu xëy na ma ak man a mën naa bañ àgg foofu waaye man maa bëgg lu lu lu tege ci yoon bu doon luñ koy làkkee ci tubaab lu professionnalisme mu ngoog euh, te itam dafa war nit ki lu mu nekk lu nekk euh, fi mu ne nii euh, awuma jafe na jafe na ndax man daa xam naa loolu xam naa loolu waaye itam lépp sama bëgg mu tege ci yoon rek moom ma ko yóbbee damay euh, waaye nag am maa nag bu ñuy jàng moom ngay dugal ci leneen moom foo ay xeeti foo moom loolu moom du ma ko sax seetaan moom loolu moom boo ko def koo mën a doon rek moom ma daal la koy wax léegi waaw. bu dee bu dee nag ku moom koo xam ni ruus naa la ba kii daan da da boo boo xamee nit da xam ni li ngay def neexuma boo ko xamul nit nag nga continuer ca waaye dam dam yomb ngaa mu yomb ngaa muñal koo xam ne tey nga ñëw. wala benn benn fan ngay ñëw yomb ngaa muñal euh, ma doxee ak yow ci nit rek ba ban tàggoo ci jàmm. wax naa di jàng am na ci ñoom ne comme ku mel ne Serigne Cheikh Jom Baye Diarra bu dajeeg moom lu baree bëri danaan ko air indo yi laa dégg léegi air yi air yi fan la ko jëlee day di di di xalaat air yi dafa am fu mu fu boo xam ne Serigne Cheikh na am na ko pour pour mën a concentré wu pour jël air yi loolu fan la koy jële ak nan la koy dikkee air yi air yi Serigne di jàng ndax air boo xoolee Serigne Cheikh na day mel ne am njàng moom nekkul njàng moo xam ne dënn lay jàngee day mel ne njàng mi da ko da ko cof comme bu noonu la da nga naan am njàngam ci diggante euh, tuñ yi ci lay ci lay nekk. heure moom <clears throat> daanaka li muy dikkee man ma amul frontière ci jàng jàng boo gisee sama jàng mën nga cee dégg ku nekk waaye nag du féete fenn ndax euh, bu may jàng euh, fi ne jàngkat yi fi nekk ku ci nekk li ngay jàng dama koy dama koy woy mu koy man léeg-léeg nag loolu day des ci man ba bu may bu bu bu leneen di ñëw ci man xëy na man naa am lu bokk ci lee dagge fele dagge fele dagge ñëw euh, xëy na loolu moo ma ci gën a moom moo ko gën a faciliter aw ma frontière ci jàng daal ñiy jàng ñëpp lay woyantoo seenum jàng euh, dama ko tàmm ba fu ne boo ma fekkaan ci marché du ma noppi damay woy rek jàng rek waaw lu ma dugg jàll jàll ci la ma génn jàll ci la xëy na loolu li li gën a faciliter sama sama kii ci la bokk waaw. waaye nag du lu may tëju di ko di ko xalaat moom wala eh, déedéet. tey eh, foofu eh, comme sëñ Cheikhouna li mu ko wax maanaam dañuy gis ne sëñ Cheikhouna bu dee jàngi sélection yi nii bu dee awu nii comme ab jàngkat ku mel ne mën nañu cee sitee comme mel ne ñett ñiy ànd rek muy yow ak sëñ Mor ak sëñ Modou Kara ak sëñ Mahmoudane dañuy gis ne bu bu bu sëñ Cheikhouna dee awu day day njàng mi day neex am rythme. te te ñoom day mel ni aw ko day day day day difficile lu war a lool talaa bu ko yàlla defal wala comme eh, lim amul frontière ci njàng wala lan lan wala xereñu sëñ Seexuna la. Euh, yàlla mooy maye mm, xam naa ni am na lu ma may ci jàng waaw loolu nag tekkiwut ni bu ma toogee rek buñ ma ko defalul ma gis sama déedéet xam ni rek xëy na nit ku nekk ak la yàlla may am na lu leen yàlla may lu ma mayul xëy na am na lu ma yàlla may lu mu leen mayul. loolu rek laa koy gisee euh, dégg-dégg bi nag moom moom sant nañ ci yàlla ndax itam euh, sant bu ñu rëwut ak damm des na sant rek nag la waaw. waaye loolu lu ma yàlla defal la du du du du lu ma jënd du lu ma wuti fenn yàlla ma ko may. yàlla na ko yàlla yokk ñu ngi la koy ñaanal baax suñu borom musal la ci cat. Euh, kon bu ko defee dañuy ñëw ba tey ci wàllu relation kenn ku ne ko xam jàngkat ku ne xam ne digganteem ak jàngkatam léegi sëñ Seexuna nan la relation am demee ak jàngkat yi dañuy dañuy mel ne eh, relation am mën nañ cee cité ñett ñooñu mu tuddoon léegi rek muy sëñ Modou karaa ak sëñ Maam Mor eh, eh, ak sëñ Dan sëñ Mahmadan Tall day mel ne ci ñetti ñooñu rek la canalisé wu relation sëñ Seexuna ak jàngkat yi fan la toll. relation bi canalisé canalisé wul foofu rek euh, relation bi ñëpp la man xëy na nag euh, ànd ak ñëpp mu mënul a nekk euh, ndax. Euh, sun borom moom dafa am lu muy dogal euh, xëy na léeg-léeg ñii nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom te muy bu yàgg Mouhamadan ñoo dëkk moom du Kara ñoo dëkkoon sëñ Mamor ci sëñ xaadim lañ xamante waaye nag ba ba ma ko fay itam euh, moom indiwuma ci sëñ xaadim fa ko fekk astaxfirullah wala boog ñu daje fa. daanaka ñëw naa fa muy doog a ñëw wala mu jiitu ma fa tuuti muy doog a ñëwaat ndax dafa jëkkoon a dem. dem Dakar après ci digënté bi la fi ñëw ginaaw bi la ñëwaat euh, waye bi ñu ñëwé yalla boole ma ak mom mu doon sama waxtan lo, euh, may and ak sing euh, sëñ Modou Kara naki nonu Mahamadan naka nonu ñay téwul nak ñi ci dess ñëpp sama wëlëre lañ amu ci kenn xaar ma yalla amu ci kenn xaar ma yalla ndax itam dama jappé sama bop rek ko xamni man man ma leen gëna soufey man fuñ dayoon ci auto sax ñu dugg dama leen di kanam nga ñu toog am na ci ñoo xam ne fii tuma euh, ko sax xalaat di xëccoog ñoom dara kon xëy na loolu moo tax comme bàyyi naa leen sama bopp ñoom itam ñu jox ma seen bopp. lagi Cheikhouna taxawal suñ Cheikhouna mel na ne buñ juumul ñetti kaset lañ euh, gis yoo xam ne génne na ko léegi projet yi suñ yi fan la toll ndax mi ngi xalaat génne benn album comme li nga xam ne musique mbokki musique sañ dañ koy def. génn benn album ndax def ko ay ay cinq titres wala six nangam nag ndax loolu sox suñu si xanaa koy xalaat. ah al musicien moom bokk musicien jàng moom bokkut musique moom daal lu boppam la xëy na ñoom ñoom bu ñuy génne kaset noonu lañuy ñuy génne ñun itam nii la ñuy génne euh, kon ku nekk na na yem ci li muy la album cinq cinq ay single euh, mu doon sélection waaw loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk ndax euh, technologie moom dañoo toll ci jamono joo xam ni média dafa am solo lu ci doxinu doomu aadama te ginnaaw ñu bari moom moom la ñuy def repère ci la ñuy xool hmm, luñ ci gisul defe nañ ne amul euh, loolu kon dafa jot ci ku nekk koo xam ni itam li ngay def bëgg nga mu daj nga dugg ci yooyu loolu moom ñu ngi xalaat. incha allah uh, yàlla sottiliku ko waaye ñu ngi ci xalaat bu sottee rek incha allah uh, dana baax. Hmm. Eh, jërëjëf sëñ naa waxtaan wi neex na ba tey jii mbokk yi yéen a ànd ak seen uh, site internet Mouride Info ni ma ko waxoon léegi sëñ Mbacke Diop moo nekk ci xarale gi tey jii di ñu dalal sëñ Mbacke Dieng moo nekk ci xarale gi tey jii ñu dalal Serigne Cheikhouna Mbaj moom mi nga xam ne moo dëkk fii ci Touba Sourah léegi danañ ñëw ci bis bi nga xam ne moom la sëñ naa Mbaj di waaja amal ci alxames. muy doon le 7 avril 2016 bis boobu nag mi ngi ci amal euh, santuk Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma waaye ba lu ñu ñëw ci bis bi léegi suñ Cheikhouna kenn ku ne xam ne léeg-léeg day roy mag ñi ku ci mel ne Baye Dame loo wala ku ci mel ne Baye Abdou Khadir Sey léegi suñ Cheikhouna dañoo bëggoon mu indil nu tuuti rek ci eeru eeru mag ñi comme ku mel ne Baye Dame loo wala Baye Abdou Khadir Sey. ñi danañ ci barkeelu xanaa bu dee bu sëñ Dame Lo bi nag na euh, njàngum rajo Sam. yi ma ci yi ma ci kii dafa bariwul ndax tam euh, daanaa fekk fekke naa am njàngam sax mu jàng ma toog waaye moom barsan bi daanaka la daan rajas maanaam bu euh, xëy na am na yeneen rajas jombul waaye yooyu jotaguma ci barsan euh, barsan bi moom barsan <laughs> bi day am awudita xanaa daan daana واترنا ديري المصطفى كرما دهرا بألف سسي منك يا الله واترنا ديري المصطفى كرما دهرا بألف سسي منك يا الله واترن دريها المستوى كرما دهرا بعرف سسي منك يا لو loolu la ko daan jànge bu yëkkatiwaatee ñu aw ko mu kiyaat waaw waaw hmm. Baay Abdou Xaadir Sey waaw moom itam danaa di barkeelu cim njàngam hmm. ala innani usni ala xayri munhimi wala ashtaki lil xalqi min faqdi anhumi ala innani usni ala xayri munhimi wala ashtaki lil xalqi min faqdi anhumi moom itam dana jaay loolu njàngum aw mi la ba tey daana rajas nag moom itam daana rajas waaye daanaka am njàngam day rajas ba ci yàgg mu yëkkati rajasaat li ci ëpp noonu la ko am na xasida day xam nag da ko rajas ba mu jeex. Mhm. waaye yooyu yëpp boo gisee ma di ci wax ay bayit nii rek eh, xëy na ku xam daaj bi xëy na coono yi jàpp na ma ba ni ma ko bëggee du ma ko mën a amee waaye ku ko daan dégg ku nekk boo boo ko déggee da nga xam ni kii ma nga ca yoonu kii waaw. Mhm. Eh, mag ñi di leen fàttaliku baax na lool ndax euh, seenu njàng dafa barkeel dafa barkeel te dafa am pësteef euh, kon ñun ñi nga xam ni ay gone lañu war nañu di leen xeeñtu seen njàng nañ doon jàng donte duñ man di jàng lépp waaye nu di ci barkeelu euh, di ci barkeelu léeg-léeg dana ci baax lool. ndax itam dana delloo si mag ñu ñi nga xam ne daan nañ leen fekk seen jotaay gone yi nga xam ne xamuñu woon leen woon itam da nga leen nàmpatal ci ñoom ndax gone yi bu ñuy dégg kaset mag ñi am na ci ñoo xam duñ ci bàyyi xel waaye yow mi nga xam ne yow lañ sopp boo ko dee jàng dañ ci daal di bàyyi xel kon loolu moo tax mu am solo. waxe léegi rek ñu daal di ñëw ci bis bi nga xam ne moom la sëñ Cheikhouna Mbaj di taxawal euh, muy sant Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde ma léegi dañuy laaj sëñ naa Mbaj bis bi lan moo ko waral ak lan moo tax sëñ naa jël euh, bis bi euh, tuddee ko sant sëñ Cheikh Mbacké sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde ma sant rek moo ko waral. ndax euh, jamono ba nu koy tàmbali euh, bis yi defe naa bariwul woon ci Touba xëy na euh, sëriñ Bàcci Jóob fi amoon bis sëñ Xaadim Géey sëñ Xaadim Kebe ay sëñ Mara Seck ci yooyu laa fi xamoon léegi nag bi nu koy def sant sëriñ bi rek lañ ci jublu waaye bi nu dikkee wax ko sunu waajur ko danoo bëgg taxawal bis sant daf ci am ngont sax la woon booba euh, mu ni ma naa ko duppee sëñ Cheikh Ahmad Ahmad Mbacké Gaynde Fatma loolu moo waral turu sëñ Cheikh bi ba léegi ma topp ndigal loolu euh, te lépp benn la euh, ndax si kër gii nu nekk nii ci loxoom la jaare mu mu jox ko sama maam waaw kon kooku war nga koo sant daana fekk itam mos naa fekk itam sama maam ca Sine Moussa Abdou gane ji ko oh, loolu itam eh, ci li tax ñu war koo sant la bokk eh, loolu daal moo wéy ba léegi mu dudd sëñ Cheikh sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma di ko ci sant di ko ci ñaanal di ñaanal mboolem itam njabootu sëriñ bi nga xam ne jiitu ji nañ ñoom ñëpp eh, ndax xaj nañ ci kaamil yi ñu fi wàcc ak fiy jàng ak salaatu ala ñoom xaj nañ ñëpp xaj nañ ci bu ko defee bis bi noonu la jóge woon ba léegi mu aksi fi mu aksi soppe yi itam eh, laxasaayu ñoom itam jàpp ci ndax eh, seen seenu ñàq du ko fekke seenu alal du ko fekke lu ne lañ ci daj ci bis bi ñooma ko sax gën a bëgg léegi eh, daanaka man damay toog fee rek du ma def dara ñooy dem ak dikk ñooy joxe seen xaalis ñooy joxe seen doole loolu nag sëñ bi tax ñu di ko def. ñu déggee ko noonu ni ko sëñ Cheikh Naam Bañ waxee léegi ñun dañoo gis ne bis yi bis yi ci bëree bëri daanaka bisi jàngkati xasida yi daanaka léegi day dem a dem ba day nuroog sax bisi waxtaan day bëree bëri ba nga xam ne njàng ma ni wax day dem ba ay quatre heures wala trois heures demi njàng ma doo ko tàmbali léegi loolu loolu loolu jàngkat yi def bisi waruñoo xalaataat seen bis yi ñu def ko njàng moo xam si day huit heures ci la wax ji ba nu bëri waaye ci bis boo xam ne daanaka coow la mooy ëpp njàng ma ndax loolu suñ seexoonaa bisam mi ngi koy xel wala moo gaay rek a wax daal waxtaan de du ci mën a ñàkk dana fi am ndax nit ñi boo leen woo ba nu ñëw léeg-léeg nga wax ak ñoom dana ciy baax waaye nag ëpp gi moom mën naa ñàkk ndax bis bi ñu bari xasida yee leen fi indi euh, waxtaan wi nag xëy na léeg-léeg nga dara jaale bis kenn ci say wëlëre bu dikkee waxtaan wooy ñu fay def euh, une heure de temps gën ngaa bari man na naa bañ a yàq ci liggéey waaye nag dem ba ay 4 heures 3 heures moom njàng ma di doog a tàmbali loolu moom dafay ëpp ndax léeg-léeg nag nit dana dugg ci ay wax yoo xam ne dootu dootu am frontière day continuer rek nag buñ ci bàyyi waxe rek dañuy daal di continuer ba dama jël temps bi yëpp te fekk xasida yi moo fa indi nit ñi loolu am solo la di ci bàyyiwaat xel bu baax a baax ndax xasida yi moo fa indi nit ñi kon euh, buñ leen woowatee ban ñëw nañ leen di jàngal xasida Mm-hmm. mbokk yi li ñu cëraloon ci wàllu waxtu jeex na tey amoon nañ ay question yu bëree bëri yoo xam ne fas yéeneen koo laaj sëñ Cheikhouna waaye nag jataay bi moo deme noonu kon ñoo xam ne danañ amoon beneen jataay ak Serigne Cheikhouna lii benn jataay mooy suñu jataay bi njëkk ci jataayu jàngkat yi eh, ni ma ko waxoon si ki ki koy def seen mbokk Serigne Mbaye Seck eh, ki nekk ci wàllu technique bi muy Serigne Mbacke ñi ngi sant Serigne Cheikhouna Mbaj bu baax a baax di ko ñaanal li mu bëgg ci xasida yi moo ko xam yàlla na ko suñu borom euh, defal ñi ngi sant bu baax nag noonu manaseeram bi nga xam ne mooy Serigne Moussa Diop Serigne Moussa ñàkk solo ñi ngi sant bu baax it nag euh, Serigne euh, ab Wade moom it nga xam ne bokk na ci awokat yi Serigne Cheikh ak mbooleem kuréel bi Serigne Fallou Gaye ak Serigne Modou Diop Raaya ak ñeen ak Serigne Mourid ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy ànd ak Serigne Cheikh kon xam naa Serigne Mbacké comme que jàng jotaayu jàngkatu xasida la te Serigne Cheikh Naam dugal nañu ci eeru mag yi kon dañuy jël rek Euh, soxna jaara bu bees bi nga xam ne sëñ Seexuna jàng na ko wala leneen mu may na ko njàngum aw bu ko defee ñu daal koy barkeeloo daal koy tàggatoog moom ñu yëkkati jataay kon nag fii laa leen di tàggoo ñu jox sëñ Seexuna mu daal di yëkkati jataay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barikal bu soobaali am na taw feex yàlla jox na tabarikàlla bu soobaale am na jox na ko ay ndam yu rëy mam jaara barikàlla bu soobaale am na tawfeex yàlla jox na ko ndam yu rëy yu dul jeex بسوبالي أمنا توفيق توفيق يلا جخنا قايدم يري مام جارة سخنة جارة ما يمي أمول فوافاس تبخ دل نيري ري أمول يتوال خاس بارك توفيق توفيق يلا جخنا قايدم يري مام جار فو جار تراب العوض جلالا ويوزل ترعاسة الجمالا يا رب بارك الله بسوبة لأهل توفيق يا الله جغلك وإنام يري مام جار يا الله برنك وكم أم لكن الملا kenn duutu ko am yitte lii lu mam jaara xam-xamam ba mu làmboog juddum bu rëy ba mësula tax ba mu gis boppam ak yaram ba tawfeex yàlla jox ko ay ndam yu mam jaara doomi gaynde lu tuut donnu njàmbaar kon du xare mu mel nii mu mel ci ab taar waaw waaw mu mel nii mu mel mam jaara doomi gaynde lu tuut dënnu njàmbaar kon du xarwa mu mel ni mu mel ci ab taar dënnu njàmbaar wa mu mel ni mu mel mam jaara mbusu bi di géñoo mbàkke nag di aw mel yari moo tax mu dënnu lañ doonu njàmbaar nii mu mel mam jaara pas-pasam cele jiitooy kemam ba jëryeem nanu koroy di ko naw loo mënul dangay jéem waaw xarwa mu mel nii mu mel am jaara pas-pasam cele jiitooy kemam ba jëryeem nanu koroy di ko naw loo mënul da ngay jéem doon